salaamaaleykum mbokku internetu web info ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne tey yéen a tàmm di safoo chaîne bii di web info ñu ngi leen di fekk ku si nekk fa nga nekk rek ñu daal di lay jàpp suñu loxo di leen bëgg waat bu baax a baax leen wax ni woy leen di abonné di like di partagé. di bëgg bu baax a baax baax au niveau national ñi nga xam ne tey ñooy bëgg chaîne bi et au niveau international tey nag duñu xaabaabal quoi parce que li ñuy waxtaanee dafa doy waar abaa maa ngi lay bëgg bu baax a baax. jërëjëf Jules l'international maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu suñu mbokki internet yi ñuy bàyyi xel si seen plateforme di web info TV. donc nuyoo fi nga xamante ne fa nga ko daan tàmbalee. Ah, ñoom ñu nga xamante ne samay xarit leen samay soppe leen am di jàmm leen mm. ah, di les sénégalais de la diaspora. Mm. maa ngi <laughs> leen ndaxte ñoom dañoo bokk temps bi moom temps bi moom non ñooñu dañoo am cër si web info lu mënta ñàkk fa ñu dugg États-Unis dugg France Italie waaw daal di leen di char bu baax a baax ndax bu du woon ñoom tey fii duñ fi taxaw ah, di nuyu sama xarit Baye di nit ku baax démb dama dugg Colobane hmm. ma ne xaar ma jàpp ji ñaari jiin rek fekk am sama benn nit bu baax daal di may yónnee ñaari hmm. junni ma ne hmm. xaar ma dugg Colobane daal di dugg ñaari jiin naka noonu nag Baye Zal daal di may gis xaamee ma daal di taataan si man ay kàddu yu rafet mu daal Baysal borom Colobane ah, maa ngi maa ngi lay kontaane waaye dinaa indi jour nga may ko ci kàttanu yàlla <laughs> ñu lay xaar bu baax a baax si émission bu mag bi eh, Buzz du coin Buzz du coin waaw moom nuyoom rek la maa la wax loolu nuyoo Aba le vrai lu mënta réew mi la réew ñu réew mi ñu soxla <laughs> toj gerte yi bu ko kenn jàlle bu ko kenn jàlle <laughs> moom moom. kuy toj gerte gi ñu koy bëgg bu baax a baax a baax donc sans plus tarder ah dañuy ñëw ci li nga xam ni tey mooy euh, émission bi Buzz du Coin lañu wax donc tout le temps rek dafay normal ñuy démarrer li nga xam ni tey mooy divertissement daal di leen def relax parce que thèmes yi ñuy waxtaanee dafa doon thèmes yoo xam ni tey buñ ciy wax ngeen war toog ni tekk presque ko c'est déglu nu nag ñu waxtaanee li nga xam ni tey mooy kaay tey kaa bi tey dafa garaaw parce que kaa noonu fi mu xaw laal dafa doon koo xam ni tey c'est mon ami mhm. boss. donc ak ki nga xam ni tey mooy soxnaam si. Mhm. Euh, seen mariage yàggul. Mhm. mais Aba. Mhm. mariage bi dafa bëri ay écho. dafa bëri ay maanaam ay mbir yu bëri yoo xam ne ni tey avant mariage bi mariage bi ba jamono ji sax defe naa ni seen lim dem yàlla neexul. te ji tey ñi ngi wax li nga xam ne tey mooy carré divorce. naka nga gisee mbir moom. waaw jërëjëf Jules ñu ngi euh, rafetlu li ni mel ndaxte doon na loo xamante ne euh, vraiment euh, bañ koy yëgee xel mi xaw na jaxasoo. nan ko waaw <laughs> waaw nañu nañu déglu kàddu yi rek defe naa ne dañ koy ñaawlu ndaxte ndaxte doon na loo xamante ne ay jeunes leen doon jeunes ñi nga xamante ni dañ leen ràññee bu baax a baax hmm. si TikTok bi surtout ki nga xamante ni sa xarit la sa àndu hmm. jàmm la di boos hmm. vraiment wax nga ko bañ ne day takk ki nga xamante ni moom mooy euh, ki mu nekkal damay fàtte sax tur bi. Euh, ummi waaw moom mii di ummi. coow li bari ñu naan mariage bi du am. wala dina am na lan moo ko waral ndaxte boos mm. euh, nu muy faral di di di di di mel si li nga xamante ni moom mooy si réseaux sociaux bi kàddu yi ngi yër kàddu yi nga xamante ne da koy faral euh, di wala kanamu yërmande bi nga xamante ni euh, da koy faral di def si image am si plateforme am di TikTok kenn ku ne gëmoo woon li nga xamante ne moom mooy mariage bi gannaaw loolu mariage bi daal di am rumeur yi daal di bëri ba tey ah mu doon loo xamante ni vraiment euh, ba tey jii nii gars yaa ngi koy ñaawlu kenn ku ne daal di génnee kàddu gu ne si li nga xamante ni moom mooy mariage yu boos tey jii nag euh, may na dëgg si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon teg yenn kàddu yi. moom bi di hmm. euh, boos. Hmm. ndaxte Jules. Hmm. am na loo xamante ne boo dee jeune nga. am na loo xam ne ñu bëri da nga koy moytu. boo amee ay xale yi nga xamante ne dañ lay suivre. am réew mi ñoo xamante ne lay bàyyi xel am na loo xamante ne da ko war a da ko war a éviter problème bi fan la démarré si affaire jabar yi dañ ko am ku def benn vidéo ngir jël benn initiative bu rafet ngir daal di kii euh, utal ki nga xamante ne moom mooy jabaru bos protège pour mu mun a bàyyi bekke yi daal di daal mun a dox mm-hmm. si biir loolu nag eh, mbir daal di si juddu ay kàddu yu ñaaw daal di si juddu. Hmm. kii di Jabaru Boos daal di génn daal di def benn vidéo. Hmm. daal di rafetlu initiative bi nga xamante ni eh, benn femme jël na ko porté ko hmm. ngir ñu utal ko li nga xamante ni moom mooy protège mais dañ ko ko waroon a signaler. d'accord waaw la loolu la. loolu la wax ndaw ko. fële Boos daal jot na pour ko li nga xamante nag daal di def eh, benn vidéo rafetlu ndaw si Sarkozy li nga xamante ni bëgg na ko si moom mais dafa ne woon daf ko waroon a euh, avertir waaw da ko waroon a aviser mm-hmm. daal di koy laaj ndax mën na ne wala mënta ne mm-hmm. naka noonu nag si la ñuy dem ah information di jàll kii di jëkkëram di boos mm-hmm. euh, daal di jël benn numéro woo ki nga xamante ni moom mooy femme boobu jël initiative bi nekkoo ko ah, bëgg naa nga ubbi cagnotte bi mais si beneen numéro xam nga loolu tamit tey na xel Jules Bellingham bu fekkee yaa ngi may dégg. maa ngi a baax yaa ngi may dégg jëkkëru ki nga xamante ne moom mooy ummi di boos sa xarit. Mm-hmm. moom moo woote si femme boobu nga xamante ne moo boor a ubbi kañot bi. Mm-hmm. ne ko dugalal yëf yi si numéro bii nii. te bu ko kenn yëg. ok <laughs> te bu ko mm-hmm. kenn yëg boobu nag Jules <laughs> tamit nag xel day tey. parce que tamit yow boo boo ne danga nga bëgg sa jabar am na loo xamante ne bu fekkee sa jabar d'accord ko yow nga yoleeku suuf dem si ginnaaw ne da ngay woote ñu dugal foofu xaalis bi xel day tey par force du jeu. loolu doy na waar doy na waar. maanaam euh, boos ba muy def li nga xam ne tey mooy contournement bi. Mhm. jabaram yëgu. jabaram yëgu ko. dafa dem jël femme si pet. voilà te femme boobu nag moom tamit daal di jël audio yi. Hmm. daal di koy tas ci réseaux sociaux bi. ndaxte doon na loo xamante ni amaana sax war a tas si réseaux sociaux bi mm-hmm. mais amaana tamit boos ni mu ko defee la. d'accord ndaxte lu mu munti doon dafa waroon a respecté jabaram lu mu ti doon dafa waroon a respecté boppam. Mm-hmm. waaw c'est très important parce que mariage bi nga xamante defagul sa un mm-hmm. mois. wala deux mois si je me trompe pas. defagul un mois boo xamante ni. barki démb la mariage bi voilà kon tey semaine bi passé la mariage mariage bu neex bu neex bu rëy voilà mi ngi noonu mm-hmm. kon tey bu ñu xëyee tamit daal di diggaat leneen li nga xamante ne mi ngi ci biir si kàddu yi nga xamante ne ñenn yi dañ ko daan laam-laamee si boos si kàddu yi nga xamante ne dañ ko daan yëkkati si boos mm-hmm. man may dute tey jii may nañ ma dëgg waaw tey man may nañ ma dëgg ndax boos li ma def nii vraiment euh, man aba vrai man rafetlu moo ko encore une fois doon na loo xamante ne dafa waroon dafa waroon diñ daal dafa waroon diñ gëm boppam bu jabaram d'accordé ñu ànd si bu jabaram d'accord mu bañ see ànd loolu moom mooy fulla loolu mooy tax nit ñi respecté ko mais tey lu ñuy def nii day tax nit ñi bañ ko respecté parce que nit ñi ñu ngi commencé di circuler les messages bi naan divorce am na xaw ma nag dëgg la xaw ma lu dëgg mais plateforme réseaux sociaux bi TikTok Instagram foo dugg YouTube ñu ngi naan divorce boss ak jabar yi ndax kaa boobu ndax kaa boobu noonu rek te kaamee lii bëgg lii ñu bañ koy xeeb kenn xamul lan lay jur. mais est-ce que du erreur tamit est-ce que ñu ko mën a baal loolu quoi vu que. Mm-hmm. mariage jeune la. Mm-hmm. Euh, te aussi euh, defe naa ni. Mm-hmm. njuumte. du wees. vu que juum na est-ce tamit aussi. boss aussi jotul mu génn leeral vu que femme bi jot na jël ay audio daal di koy teg si li nga xamante ne mooy réseaux sociaux bi. est que aussi jotul mu génn daal di leeral. tamit mais erreur warul teggi tuuma daal. waaw erreur warul warul di répéter. parce que ah, ay dafay def ay nit ñi di wax ñi di bàyyi nit ñi di wax mais bii dafa doon loo xamante ni du ma ne erreur damay naan tayef la parce que boos moom kilifa la tamit actuellement kilifa la. Hmm. ku dul mbéyoon soxna kilifa nga am na loo xamante ne xel mu màcc nga ko war a doxee. d'accord comprendre xel mu sell ak xel mu sell. Hmm. parce que mënuma comprendre nga sa jabar xale bu ndaw ñu war ko utal li nga xamante mooy protège yow nga jënd beneen numéro. ne neen la defaral fii cagnotte bi mm-hmm. mais imagine cagnotte bu demee bu mat benn un million boss day jël xaalis bi dugal si poosam ne nda stop ah boss la loolu ah, mais quand même loolu loolu la doon signifier rek man en toute sincérité dama koy conseillé na génn bu waree wax na génn wax parce que dafa doon loolu xamante ne dafa teel c'est vrai qu'il faut mu génn leer. il faut mu génn parce que am na yeneen tuuma yoo xam bu la toppee c'est fini c'est fini. mariage confiance moo ko lal. effectivement confiance moo lal mariage. effectivement bu confiance ba nërmeeloo. effectivement oh. te tey jii nii tey jii nii moom bu génnee. Mm. su ma dajeeg boos bët boobu laa koy xoolee. lu wér nga wax. waaw te bëri naa si ay morom ñi nga xamante ne bu ñu dajeeg moom si mbedd bi nii te moom fu ne lay dugg bët boobu lañ koy xoolee. Hmm. parce que audio mi ngi circulé si si net bi audio mi ngi circulé si TikTok bi. Hmm. kon il temps tamit mu daal di génn daal di hmm. wax ak askan bi. wax ak moom ay soppeem. mais tamit waxar ngir def defar bu baax a baax mariage bi nga xamante ne yàggul. c'est très important nag ko jigéen ki tamit. dafa am euh, famille. si ginnaaw dafa am ay nawle. kon am na bët boo xamante ne euh, buñ ko ko xoolee rek ah la ñuy wax waaye. kon ñu éviter loolu. donc loolu dafa am solo li nga xam ni tey mooy teggi tuuma du ragal mais setal sa der. setal sa dafa am lu am solo ba si kaaw li nga xam ni tey mooy ki mu doon wax yaayam la. Mm-hmm. du yaayam quoi. ah du yaayam lu lu ndaw li. waaw lu ndaw li du yaayam. du yaayam du ah loolu aussi eh, ay ay ay mbir la loo xam ne. Ah, bu bëree da lay topp parfois bad ah. na la mën nga si am notoriété. Mm-hmm. mais mën nga dem ba ci biir tey après mm-hmm. yooyu day répété ko parce que. à un moment donné day dem ba benn instant loo waxte gars yi dañ naan ah. Mhm. saa yi daal. saa yi génn daal di leeral. Mhm. li nga xam ne tey mooy askan bi vu que sa vie euh, mhm. bokk ci askan bi. xas naa bokk ci askan bi te aussi. ñëpp reconnaître nan la. donc en tant que ami. donc loolu da ci baax aussi nga génn daal di leeral. mu doon mbir moo xam ne nii tey ñëpp dinañ ci mën a éclaircir. bu dee femme bi aussi dafa. dafa jël maanaam daf la déclaré guerre wala leen ak leen maanaam daal nga génn leeral daal. génn leeral leeral daal mm-hmm. donc mu doonoon situation boo xam ne nii tey ñu bëri ñu ngi koy kii quoi mais souhaité leen li nga xam ne tey mooy mm-hmm. mariage mm-hmm. du benn fan te ba ngeen duggee si li nga xam ne tey mooy mariage bi yàggul. donc il faut aussi. ngeen xool seen seen seen seen ginnaaw. ñi dox mariage bi ba mu tegu. ñi nga xam ne tey dégg nañ ci ay ah, te gars yi ne nan bàyyi. boos na bàyyi yërëmtalu bi quoi. waaw waaw loolu tamit lu am solo la <laughs> ren boo koy tàmmal di ko wan yenn affaire bu mm. yàggee da da mm. koy soof mm. te xam nga tamit nag. gars yi c'est vrai que Sénégalais mën na leen dóor si ko ñuy loolu tamit quoi man loolu moom bëri bëri na loo xamante ni man loolu soof na ma si moom. voilà soof na ma si moom man tey jii su ma génnoon vidéo di yërëm tam bu yàggee man dama lay soof de man it soof ndóol kese la quoi. gars yi dañu bëgg ku am. jiw l'international noonu la demee gars def kontaan nañ ci éclaircissement yu am solo yooyu noonu parce que mm-hmm. tamit. Mm-hmm. ñoo war a di édifier ñi nga xam ne tey mooy euh, sunu auto sunu sunu sunu internautes yi. Mm-hmm, ak ñi nga xam ne tey ñooy bàyyi seen bu baax a baax a baax mais nag damay basculer rek daal di dugg si li nga xam ne tey. si kaawu Tarba Mbaye beeg soxna Bator bi <laughs> waaw yëf yee ngi yëf yee ngi yëngu. yëf yëngu de partout gars yi nee jël na. soxla ba tey deuxième femme ñii naan clip bee tax ñii naan lii ak ñi ñii naan lii ak lii indi ma loolu ci ay leeral parce que loolu defe naa ne xam nga ci lu bëri lu kenn xamula ah. il faut nga ñëw ci loolu ah. non non non lu garaaw la si xam c'est que nag mosal ma si tuuti en attendant les événements parce que am na leneen lu war a ñëwaat ci kaw loolu ah, su ma jóobal de maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom mii di suñu frère Euh, di Tarba Mbaye maa ngi koy nuyu di sagu Grand Dakar. di mhm. doomu Grand Dakar. Mhm. Euh, mi ngi bay waaram bu baax a baax ah si musique sénégalaise bañ ñu ko ñu koy woowee la Baye Fall de la musique sénégalaise. Mhm. waaw coow li bari na moom ak soxna Bëtër ah. kaw 3 millions par or bi. Ah, defe naa ne defe naa ne tey lay wàcc de soxna Bëtër tey la war a sëy si de. ah bon. Ah, daf ma juumu tey la war a sëy si dimanche tey bi la war a wàcc fii si koñu mbàkk yu fay de. daal kàlla macha allah réew maa ngi yëngu de. soxna bu sor mel mi séeri télé ah réew maa ngi yëngu de ah réew maa ngi yëngu may na ko 3 millions 3 millions la ko may ak parure or or maa ngi dégg sax oto si biir waaye xaw ma na tey nag dinaa si am confirmation ndax oto day wàcc wala du wàcc waaw waaw mais mais mais mais mais bi nu mu def ba mu rawoon ni ah te ñu yëf yi sorowunu boo génnee nii rek beneen beneen bi beneen koñ bi ah yëf yëf ah, yi non waa li si li si xam nag waxoo ko ah, parce que yaa ngi yaa ngi may junj bàyyi gars yi ngay junj parce que ñu bëri nee nañu saa waay jëlul soxna ba tóor quoi. Eh. waaw gars yi neen clip la. waaye li mu si mënti doon. gëstu nañ gannaaw ba ñu joxee information yi mbokki internet ñu doon bàyyi xel seen si seen plateforme di web info tv mm-hmm. mm-hmm. euh, ba ñu jotee information bi ne ba mbay da doon takk ki nga xamante moom mooy soxna Bator ñu daal di jàllale information yi daal di koy séddale si euh, réew mi yëpp ñëpp daal di yëg lu ni mel mm-hmm. naka noonu nag ba ñu joxee information bi nit ki yow ba ñuy wax ak yow nii ñuy defee ni émission bi la ñu yëg ni euh, que ni clip lañ doon waajal ah <laughs> ah non loolu non loolu mënul mënul mënul gravé nii tarba warul mën a jël xam nga booy bi nii waaye. Euh, clip bàyyi nañ ko xel. Ah. war na gën a xam dayam si. clip la clip la clip la moo war a génn tey jii nii euh, ah, si dimanche tey. Mhm. lañu war a génne kilib bi tarba mbay daal di si way ñi nga xamante ni ñoom ñooy aaw mais clip bi dafa basé wu si si si ñaareel. yàlla dogal ka ni soxna Bator moom mooy ñaareel si clip bi naka noonu nag image yi nga xamante ni mi ngi doon circulé euh, ñoom ñaar ñu daal di def nii seen loxo. Mhm. bëri na ñi nga xamante ni ñu ngi ko doon tas Montréal la woon waaye dañ leen koy jox en exclusivité euh, waaw mi ngi noonu clip la waajal tey ji euh, Tarba ak ki nga xamante ni moom mooy Soxna Bouteur mu doon loo xamante ni clip bu rafet la am na surprise yi nga xamante ni euh, mi ngi si biir am na bongo man bu mag ku ñu ràññee nga xam ne bu yuuxoo euh, ñëpp kontaan moom tamit mi ngi si biir euh, clip bi bari na bari na ay surprise yat ma jàmm waaw Ousseyn Mbaye waaw mi ngi si non man damay pour di développer man dama des choses quoi dama ko bëggoon a kii nii rek muy xaw a balancé wu di def nii sénégalais yi ñëw jox leen affaire Ousseyn Mbaye mi ngi ci waaw mi si suma mag suma xarit yat ma jàmm moom mm. tamit mi ngi ci biir ah, bari na ay surprise yi nga xamante ne waaw mi ngi si biir clip bi mm. waaw lu mu si mënti doon gars yi bu du du mariage ñaar rek lañ doon woy. <laughs> ak <laughs> clip bi ma gis nii du pour ngénte de du pour mariage clip high level la. waaw léegi léegi taxawal tax nga ne du du du pour ngénte du pour léegi ku ma wax jooju. ah mais ah, yaa ngi fi wax yaa ni ay ñoom ñële moo ñu nekk suba moo ne leen ñooñu seen clip def pour ngénte yeeg soirée yeeg yooyu la. <laughs> di Wally Seck nag moom te xoolal. mais yow kii naa ko wax sax. Siri Diop. Eh. Siri Diop dafa may 3 millions kii di Siri di jaawale. yaa ngi jaawale de. non dama jaawale Siri Diop la bu fi ñëw naan ma Matar suba teel ak yooyu Siri Diop moo décaissé 3 millions jox ko Siri Diabate Siri yaay bandi. yaay eh. gor yow maa la fi nekkal. xam nga jour boobu jour yàlla dafa def ma nekkoon si terrain bi ak Idi. ànd ak euh, moom ñu nekk si terrain bi di am beneen liggéey nekkate boobu am na ku may woo sama téléphone si mhm. whatsapp bi nekk moon en ligne di Rimka mon ami mon frère de euh, moom tamit di doomu réew mi sénégalais la mais mi ngi basé wu foofu sa Mali mi ma doon woo pour wax ma que ni euh, Sidiki mi ngi fii Sénégal actuellement ñi ngi dem si studio bu bees bu waa Subatel musique yooyu noonu xam nga Sidiki dafa nekk di préparer Bercy mhm. foofu sa France mhm. mu daal di ñëw fii daal di def nemmeeku fii si réew mi daal di dajeek yenn artistes euh, si la euh, dem fi nga xamante ne moom mooy si waa euh, Subateelu musique kii di Mata Diop Subatel moom mi nga xamante ne moom moom Subatel musique daal di yëkkati 3 millions hmm. daal di koy may ki nga xamante ne moom mooy 3 millions yi Sidi <laughs> may 3 millions yi <laughs> waaw ba te jërëjëf nii la mel quoi man daal mbokk internet yi ñoom dinañ commentaire ñoom xam nañ ko may ñoom xam nañ ko may 3 millions yi ñoom xam nañ ku moom ku mayee 3 millions yi ndax bu doon mayee 3 millions war na see mën a tabax kër mais pas nga dem di lu may wax. Eh, ñu ngi wax si kaw son ay ci nga. si yooyu te te te la de. si Diop est ce que jotul kii quoi les waxul quoi est ce que jotul nga am sa kaa ak Aba ngeen lijjanti ko parce que jot na ngeen def octogone wala ngeen def li nga xam ne mooy leneen ak leneen parce que yéen ñaar yéen ñaar moom ak yàlla quoi. muy eh, lu mu si mën di doon. Matar Diop suba teel moo may 3 millions yi. Matar Diop suba teel moo may Sidiki Diabaté 3 millions 3 millions yi. d'accord kon jeex na daal moom doon loo xamante ne lu ma leer lu leen naaj la. kon sur l'international dégg mu ngi waxaat waxu Sidi Diop. pare naa si nekk. baax na mais diwo bi muy def ki nga xam ne tey mooy Sidiki Diabaté berti na na wàcc de. Bercy daal en tout cas Bercy dina yëngu. dina yëngu ah, dina yëngu. mais confirmation na Sidi dina fa yegg wala dafa fa yegg. Hmm. pour le moment leeragul. Hmm. waaw mais nañ jàpp ne Sidi dina yéegam du yéeg. di yéeg wala du yéeg non mais li ma la mën a wax dégg nga dégg li ma la mën a wax. li ma la mën moom moo fa. Sidiki Diabaté déplacé wu ñëw ba ci suba war na. li ma la mun a wax Bass Thioung gën a yéeg yi moo gën a leer que Sidi Diop yéeg ñu toll nii information de terrain rek man maa ko voilà dafa am lu laxaw si fii balaa boobu nag mën naa leer ak Ousmane kii bi aussi ñu si parce que Ousmane nee na léegi moom xaw ma lan la tudd léegi waaw boobu xam naa après dinañ ko topp waaw dinañ mais loolu mooy yoon Hmm. waaw loolu mooy yoon waaye lu si mënti doon dañ jàpp na ba Thioune gën a yéeg si Bercy moo gën a leer jamono ñu toll nii que Sidi Diop yéeg Bercy voilà xam naa fi événement bi gën a jege na leer nag mu yéeg pour le moment leeragul mais loo wax waaw di ko félicité suñu yaay suñu xarit di nit ko baax vraiment moom tamit bay na waaram depuis loolu waaw bay na waaw waaw vraiment bu doon trophée boo xamante ne mhm. yëkkatiwaat na encore une fois euh, baatu Sénégal wane na ni mun na yegg fu ne te Viviane incarné na ko Viviane wane na ko nama ko daan waxee si mélodie musicale yi nga xamante ne mi ngi koy teg si euh, façon de soline bi nga xamante ne mi ngi koy teg di ko imposer tey may na ko mu daal di am euh, trophée trophée bu mel noonu ñu koy ñaanal trophée bi yàlla na doon euh, njiglaayam yàlla na si yeneen trophée daal di topp ndax jamono ñu toll nii waaw non Viviane bi cinquante ans cinquante ans la Viviane barki démboo Ndiaye la doon souhaité cinquante ans mi la doon la ko doon soufflé mais Viviane Viviane moom du mais macha allah ñu ngi koy ñu mu maasee ñëpp ñii ay kii lan de. mais macha allah parce que xam na nan lay gérer carrière am te c' est très important artiste nga xam nay gérer sa carrière hmm. mais c' est très important aussi artist nga xam naka ngay gérer sa sa voilà yooyu yëpp tamit dafa bokk wala dafa bokk. parce su nekk voilà li la attiré mi ngi noon nag tey son bi voilà mi ngi noonu tey nag ngi noonu te tey nag loolu moo ko may mu daal di am trophée bi nga xamante ne du nekk woon moom kese dafa bëri woon ay moroomu artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo sa nekkoon di jongante mm. Mm. ngir am lu ni mel te moom trophée bañ koy doon jox daanaka da ko bett dafa fekkoon sax muy simeeku mm. ngir jël valise mu bu daal di wàcc si waa Sénégal si lañ ko mu daal di daw ñëw ñu jox ko trophée ñu ngi koy félicité encore une fois euh, suñu yaay ji di euh, Viviane Chidid yaayu Philippe de amati na ndam ak euh, ñun Sénégal yi aussi ñu koy félicité euh, bu baax a baax a baax a baax euh, mais nag Aba cas bi tëjee cas xam ne nii tey maanaam mm. cas bu la mm. cas immigration bi mm-hmm. ndeysaan suñu mbokk yi nga xam ne tey départ woon sa Casamance ndeysaan maa yegg nañ ci jàmm non non déedéet waay moom kay fi ñu atterrir xaw doy waar <laughs> ñu wàcc Sédhiou la ñu wàcc wala Géejawaay la leen bu doy man xaw ma waa la jaarale gaal gi ba fëlee géejewaay gii mais billaay kooku ñu war a jàppale ndulli national lan ko war a def yow yow nit ñee galéré ba jël dugg ci gaal gi nga war leen yóbbu pour sa Espagne sa Madrid nga leen di nga xam ni. Euh, ku leen recevoir Ahmed Aïdara monsieur le maire nekkoon ci gi nee na ma moom daal dafa wàcc rek gis maire bi di waxaale jën bu bu du waaye man fa laa ne nii ah maire mu naan jën yi jën yu bees la léegi-léegi nag. waa ji découragé waa ji looloo looloo instant bi mu koma. ok baaxul. mooy <laughs> jël mais de mais sama grand bi dafa mel ni foofu gaal googu la naroon a jël. moo tax de bu kay yee gerte gi comme <laughs> moom bu naroon bu ñu yaakaaroon si moom mu dem Espagne kon géej waay lay wàcc. mi lu jar a lijjanti la. waaye les soxla waay ngi jàpp. doomu jàmbur yi lekkoo ñu yóbbu leen Espagne wala ñu yóbbu leen ñu ngi leen di génne ay géej waaye. <laughs> te xoolal li gën a garaaw ci affaire bi dañ lay wëral maanaam mun nañ la déparé fi nga xamante ne mooy ndar. Mhm. wër dugg daal di jàpp code bi wër nga yow nga foog ni yow. yaa nga ca génn yaa nga ca fekk ne ñu ngi lay wëral wëral wëral ay mbir yoo xam ne yii tamit. Ah. mais métti na métti na vraiment nga déparé Casamance wàcc ji fi nga xamante ne mooy mm-hmm. Guédiawaye. Euh, mu doon loo xamante ne métti na lool. waaye defe naa ne am nañ yaakaar kenn ñàkkul seen bakkan ci lu mel. Mm-hmm. waaye vidéo yu ñu gis jàpp nañ ni gaal gi dafa dafa daal di toj ba daal di dëpp Euh, mënatul toog bu baax ci kaw. ci kaw ndox mais surtout loolu euh, am na benn cas ci jëlee woon àll àll fële mais muy wax mhm. ni. Mhm. gars yi. Mhm. la majeure partie dañuy peinturaat gaal yi ay gaal yu màggat la ñu. dem teg naa ak sama bët. gis naa fa ay gaal yoo xam ne nii tey. bu dee gaal yooyu lay gaal la nit ñi di peinturaat di yóbbu nit ñi. ñi ngi yi nit ñi. xool leen seen akulaay taala ñu ngi rey nit Jules l'international. na waay état bi na xoolaat yëf yi te Jules euh, semaine passée ñu dugg gaal yi jëm dem Espagne dafa bari trop. jeunes ah, jeunes yaa ngi dem jeunes yaa ngi dem te nañu moytu réew mi nga xamante ni. Euh, jeunes yaa ngi jóg di mbàbbeeku di dem jël yoonu Europe bi ah, Kaolack. daanaka ñun ñëpp moo leen demee Louga jeune desetu fa Bargny jeune desetu fa léegi bu ñëpp demee damay ragal ñaar bi yëpp nag ñun ñëpp daal di jóg ñun tamit jóg dem ñun ñii di wax ak ñoom ñun tamit bu ñu deful nang ñun ñii dañuy làmb gaal gi daal di dem bëgg tekki waaye lu mu si mënti doon na na na na na gi xoolaat yëf yi na nguur gi xoolaat yëf yi doon na loo xamante nga déparé Casamance wàcc Guédiawaye loolu doon na loo xamante ne tamit nag vraiment métti na trop ah mi métti na lu mu si mënti doon daal yàlla nañ ngi ñuy bëgg a rey. yàlla na yow ñooñu la. diisal gi. Hmm. waaw wallaay ndeysaan. dootul woyofal de. xam nga diisal Jules woyofal. xam naa foofu uh-huh. mi ngi rey nit hmm, da ngay jënd 2000. ba nga bu ñu la woowee añ ni si boolu añ bi di hmm. dànk balaa ngaa sax di dugg mu yuux mu ne tiit tiit signalé le rouge te loolu dafa grave. bëri seen sutura xaawee noonu ndax woyofal. de woyofatul bëtt na poos bi. woowee fatul na man daal man man xaw ma daal lan la yow da ngay dugal deux mille balaa ngay toog si bool bi di dank di dugal sa gémmiñ mu daal di signalé tiit tiit rose réew mi metti na ñëpp a ngi ñëpp a ngi jooy signalé ba fuuta naan ma ngi bëgg dee te ñoom nee rek nañu taala ah. man laa la ñuy taal climat ñuy taal leneen ak mais bu ñu demee ba fuuta di dee oh, si lu ni mel ñun hmm. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si xolu Ndakaaru ñun nan lañu war a def nan lañ war a def ah. vraiment politique boobu war ngeen ci xoolaat quoi ngeen xoolaat comme que. fa muy méttee daal xamuñu fan la xaw ma daal lan lañu war a def bu fekkee ñun ñëpp dañoo war a dajaloo. jóg dem si buntu Sénélec maanaam stratégie bi lan la dañu ñëpp nañ jóg jooy ko dem ba si buntu Sénélec taxaw fa. yor suñu yor ñu ñëpp yor suñuy boîte taxaw yuuxu ko fa. vraiment woo média bi ñëpp ñëw ñu ah. yuuxu fa réew mi président xam ne réew mi métti na. ñi ngay bëgg a dee ñu ñi ngi bëgg a dee. kenn xamul lii la mënoo ñoo d'accord si dund bu cher. ñu koy muñ ñu naan danañ yokk mburu wala duñ ko yokk courant lu ñu bëgg a rey lan la ñuy yorati. courant yokk mburu beeg yëpp courant ah, beeg la ñuy yorati. franchement ah kenn nekkatul ba suur. mënoo am courant bu doy. waaye fu ñu jëm waay. fan la ñu jëm waay ah, li kenn xamul li dala mais xam naa foofu rek leeni daal di jaare rek daal di yëkkati jotaay bi. li dugg si ñang bi xanu si si cin li. Mhm. mais euh, di leen béggawaat bu baax a baax yéen ñi nga xam ne tey. Mhm. yéen a nekk. toj na ñaari mbuus. ah man kay xanaa ñu ko noonu rek parce que xam naa ni xam naa ni xam naa ni xam naa ni xoolal naan toj nga ba fàttali wax nañ si affaire Viviane bi mais garaawul garaawul quoi. Eh. Viviane ba nu wax sa début émission bi na nañ ci wax si Viviane bi quoi mais loolu dañ ko koy baal amul benn problème xamul moomin la. Eh, yow la xamul dara ndeysaan moomin la amulul kenn bàkkaar amulul kenn ki may wax nii amulul kenn bàkkaar <laughs> franchement. nan ko bàyyee rek waa ñu eh, dañ ko soxla. Eh, donc ñu leen di waat bu baax a baax avant ñu bàyyi la nga. waaw jërëjëf Jules maa ngi rafetluwaat encore une fois émission bi di Buzz du Coin di rafetlu suñu mbokk internet ñi nga xamante ne dañuy bàyyi xel bu baax a baax site bu baax bi. Mm-hmm. di web info TV di leen wax ni fe ngeen ko jàpp foofu la bu leen dem si beneen sit Mm. nekk leen fi nga xamante ne mooy waaw si télé bu baax bi di web info TV ñoom ñi seetaan yow mii di ma bàyyi xel di bàyyi xel émission bi bu fekkee ni abonné ko bësal li nga xamante ne moom mooy euh, waaw donc bësal rek waaw doo fay ah cherul da ngay bës daal di bës cloche notification bi su ko defee ngeen daal di bàyyi xel tout le temps suñu émission yi les sénégalais de la diaspora ñu ngi leen di rafetlu bu baax a baax si teewlu bi ñuy teew teewlu ndaxte Jules euh, booy def ay émission ngay nga pare nga xool nga gis ay commentaire te ñu si bëri waa diaspora bi la ñun dañ leen war a di sant ndaxte ña nga ca bitim réew waaye ñi ngi xel Sénégal mm-hmm. te loolu dafa am solo mm-hmm. ñu leen di ñaanal yàlla ñu yàlla euh, defal jàmm maa ngi lay remercier encore une fois mm-hmm. euh, su koy na saw dégguma ko dem bu fekkee yóbbante bi euh, jotaguma su koy na saw ah waaw voilà awlaa ñu ko de awalaay bëgg naa gërëm ma ko de awalaay xam nga nii la mel gërëm ma la de awalaay waaw léegi daal man ak yow pare na jox naa la jule dama xaw siis awalaay tu siis la instant yi nii daf may jéem a lëfal pour ma bañ la gërëm mais awalaay sant naa la gërëm naa la ah donc di leen jox dig daje rek ba beneen euh, dimanche incha allah rabbi ñu daal di waxtaanee yeneen cas parce que Sénégal cas rek la mhm. à tout moment mun nañ kaa aba mën nañ pare nii sax ñëw waxaat à tout moment mun nañ kaa aba naan leen ko <laughs> fii si UM Info ak Jules l'international ah jaajëf jërëjëf tey dama lay nuyu. ok merci beaucoup. Kiteel. <laughs> génn